daf koy utiliser pour que juste na Amadou Ba gagné pour que ñoom ñu des ci pouvoir bi je pense que ni doon na def leneen pour génn pour maintenir Ousmane Sonko ci kaso que mu di ko génne le fait que mu génnee ko nag dañuy commencé xalaat ni Ousmane Sonko actuellement mission bi muy dox Macky la koy doxal que Macky Sall aussi dafa am intérêt ci jeu bi actuellement te ñoom ñaar li xew moom mooy ñoom ñaar wu ñu ñoo bokk li ñuy wax et que li ñuy wax nag ñi war a tiit moom mooy les dix neuf les euh, dix huit autres le pourquoi ñu bëgg leen effacer lan la ñu déggoo ñoom ñaar. tey Ousmane Sonko bii génn wax dafa toj glace teg ci. li nga xam ne si moom moo les réalisation de Macky Sall. remercier ko de manière indirecte ci condition de détention yi mu nekkoon ci prison bi. lu kenn xaarul woon. li mu wax yëpp c'est pour dire merci à monsieur le président Macky Sall. et que Macky Sall ci conférence de presse li mu layal pour wax Macky Sall euh, ci Ousmane ko bien que nommé wu ko directement mais li mu wax yépp c'était taillé sur mesure ko Ousmane la bëgg a génnee ci kaso bi ban ban tension politique moo fi am amuñu benn situation boo xam si dañuy wax apaisement sociale moo tax situation bi nos forces de défense et de sécurité maîtriser nañ lépp jour pour jour un an Lamine mi toog na fii kooru daaw. c'est kenn du ko fàtte li mu waxoon. ça la même chose donc tey bu ñëwee ba fii. ñu ñëpp li ñuy wax mooy jàmm lañu bëgg nañu def jàmm. Mm. mais il faut aussi tamit ñu poser wu ay question lan moom moo xew. monsieur ah, Sarr mais Kader lan lan laa wax ne lan moo xew. ba ñu war a mën a jël. ah Ousmane Sonko ko ci kaw Amadou Ba parce que tey jii. c' est pas gratuitement ñu gis Ousmane génn rek attaqué Amadou Ba alors que différence bi entre Amadou Ba ak Macky Sall dafa leer. da nga foog ne dañ ko yónnee. dañ mais Macky a fait sa son part du marché. léegi li des kay moom mooy moom tamit lan la ci war a def accord yi ñu am ca kaso ba. kenn ku ci nekk danga am loo ci dox mais bu ñu waxee accord amul seen doxalin bi wanewu ko dara du gratuite. que que Macky moo yónni. Sonko pour mu attaquer Amadou Ba mais bu ko yónniwul kan mooy yónni Ousmane Sonko actuellement. doxalin bii ñu gis ni ci ñoom ñaar ñëpp dama ni li ñu am comme un mi ngi commencé dox te mi ngi leer te Macky Sall il va tout faire pour défendre soo ko te loolu kanam la jëm mais Ousmane lan lay jox yi Sénégal lañ ubbi seen bët. est-ce que le 24 bii ñuy wax nii est-ce que réellement dinañ dem ci am ay élection su ñu demee ci ay élection Diomaye mii gagné ko lan la ci yi ak Ousmane di gagné parce que mënuñu nekk ay noon depuis un an plus de deux ans sax ñëpp constaté que ni lii neexatul kii dem ba ni lii fi amoon du fi amati ñu naan palais bi jënd nañ ay armement ñu ngi préparé wu ñii naan dañuy marcher sur Dakar pour déloger le président et que au beau jour mais quand même Sénégal dañuy xalaat très bien. il faut ñu nangu ñu qu'est-ce qui s'est passé donc qu'est-ce il faut nga expliquer nit ñi aussi. non la ñuy taxaw def ay il faut nga wax ne lii moo tax Macky Sall def lii.

notre principal adversaire aujourd'hui c'est celui qui veut perpétuer le système Macky Sall n'a plus la possibilité de perpétuer le système il va quitter le pouvoir le avril est-ce que comprendre nga loolu li ma déjà comprendre nga loolu donc à partir de ce moment là ñëw attaquer Macky ban njëriñ la ñu amal mais mais attaquer attaquer pour autant et pour autant attention attention te pour n'a pas est-ce que kan ci Ousmane dafa épargné tey. ah <laughs> ko épargné. à quatre ah naka la ko épargné. Ah, quatre-vingt-quinze du enjeu. Ah, dafa da ko épargne ci lépp. mais mais Macky n'est pas le président de la République xam nga non bu xaaral xaaral ma expliquer la. Kader dama bëgg nga comprendre que dafa am. président légal, président de la République légal et président de la République légitime. Ousmane n'a jamais reconnu la légitimité de, de Macky Sall. waaye légalement mais Macky Sall est le président de la République. <laughs> dama bëgg nga comprendre loolu déjà non légalement il est le président de la République. bu ci demee ñu ne Diomaye gagné na aussi il devient directement un président illégitime. ndax lan parce que fi mu toll nii. ndax lan ci lii ñu nekk ni élection yi ñu jëm nii. Hmm. amul dara lu ci légal. ah dara tout personne laa lay wax ni bu ñu. élite kan moo ñu indi kan moo ñu indi ci illégalité boobu ngay mais loolu ñëpp ko constaté. kan la les manquements ci conseil constitutionnel. kan la ce qui s'est du président de la République. très bien est-ce que président de la république bu renvoyé wul woon élection yi le vingt cinq février du ñu dem ci ay élections yu normal mais parce que parce que ci accords yi xëy na ci la bokk accords yi moom parce que nga wax non booy wax nag en tant que chroniqueur da ngay tu peux pas mënoo baser sa ay sa argument ci ay peut-être diggante xoolal PDS euh, Benno Pastef réerootu leen je te jure réerootu très bien. et que loolu nag au détriment des Sénégalais. je suis désolé actuellement fi ñu jëm nii. <laughs> je suis vraiment désolé mais sama sama sama xarit bi wax dëgg yàlla. et puis dañu bëgg a comprendre parce que. non waaw d'accord actuellement on a juste besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. pour mm-hmm. que ñu agsi fii tey. et que la suite c'est quoi. fan lañ jëm. très bien su fekkee ni si ni c'est pour ñu reba rebrotaat carte gi pour ñëpp bokk amul problème dañ ko wax les Sénégalais parce que ñu. on comprend que ni fi mu toll nii fi mu toll nii que Ousmane ñëw nekk candidat au Pastef ak li ñu gis ni man je pense que c'est mieux. très bien c'est mieux pour ñëpp. merci Kader. que Ousmane nekk. dellu si nekk candidat Pastef nekk seen candidat mu jeex. et bëgguma dugg sax ci ci Diomaye bi ñu gis ni tey mais man je pense j'ai très peur que pour ñu ne Diomaye ëllëg moom mooy le président de la République. lu tax ah non. balaa may ah, dem ci Omar Faye pourquoi. la mémoire de Léopold Sédar Senghor et de nos anciens man je pense que ni vraiment euh, je respecte beaucoup Diomaye. Mm-hmm. mais quand même le plan international. je vois pas Diomaye. dem jàkkaarloog ba Joe Biden. mais je mais vois mais pas dans une république normale. dans un pays normal yow doo nekk chroniqueur dans un dans une non je te dis non quand tu dis que ni Diomaye warul war tu le vois mal mais complexe boobu foo ko jëlee. da nga da dans une république normale doo nekk chroniqueur. man sama télé doo fa nekk chroniqueur. bien sûr non parce que parce que yow. moi je ne t'ai jamais vu analyse cohérente donc boo taxawee di wax il faut pas personnaliser le débat parce que li ngay def noonu maa la ko dàq de cette personnalisation du débat maa la ko dàq voilà man su ma amoon sama télé doo fa nekk chroniqueur voilà c'est ça d'accord parce que je considère que nit ñi tu ne fais jamais une analyse cohérente du attaque ba pare messieurs s'il vous plaît yow la personnalité yow jamaay moo la ëpp xam-xam Moustapha moo la gën a cohérent Moustapha oh. Kader faut arrêter quand même s'il te plaît s'il vous plaît tu te rends compte ces attaques personnelles là dinaa ko bàyyi monsieur Sarr monsieur Sarr Joe Biden lan la lan la ëppale Diomaye mais on se calme s'il vous plaît Joe Biden lan la ëppale Diomaye Moustapha il faut arrêter ce complexe là ëpp ko dayoo gën koo bëgg réewam. Oh, on vous a entendu. faut arrêter mais man je dis juste la même chose ak ñeneen ak ñeneen. non man li sama position la. non je dis que Diomaye Diomaye je n'accepterai pas que day taxaw fii non non non non non li may wax mënu mënu ma ko du ma ko comprendre je ne le comprendrai jamais. jamais la situation quand même tu fais des affaires personnelles parce que ma toog di la bàyyi. c'est bon ne m'obligez pas à la lan nga reproché Diomaye xam-xam nga koy reproché Diomaye de lenn nga ko mën a reproché xam-xam yaa Moustapha. je ne le reproche rien. le reproche rien du tout. alors ah, s'il vous plaît euh, Omar Faye mooy kan. Omar mais dañoo am complexe yooyu. mais mais s'il vous plaît on s'écoute pour que nit yi mën ñu dégg. Ah ah Omar Faye euh, euh pour te retourner la question bi ma posé Kader par, par rapport à waxtaan bi nga nekk que mënul ñàkk ci politique alors que gis nañu ni que am na nañu mu waxtaan boobu am na nañu mu féewale Euh, Ousmane Sonko àndam ak peut-être euh, Khalifa ak Barthélémy Diaz. waaw loolu xam nga. Sarr bëgg naa wax boo waat waat vraiment. nous a parlé waat nous a construit un monde contrairement aujourd'hui nous avons construit un monde par la